salaamun ala man qaala lidaa bi man ana wa qaala rasulillahi battatu zaida sidina muhammad salaamun man kursil miski yamsi wa yuqtadi wa ala xayru xalqullahi nuuru muhammada sidina muhammad salaamun jàmm la salaamun mucc la waaye salaamu yu naa leen ala xayru xalqulaay màggal leen sanga ba ca madina seydina muhammad nabi dañ koy woowee seydil awalina seydina muhammad nabi dañ koy woowee seydul aqarina moom mooy seydu sharifu moom mooy seydul basar xabibu rabul alamina imaamul xaramayni kooku jar naa woy waaye alhamdulilahi lazi anaaral wujuda bital atil xayril bariyati seydina muhammad bi isbaa i rahmatil mursalati yonnen moom mooy samsu diinil islaamiya borom man tawallaawu mawlaawu bil qimsi war imaayati war ayati zarmadiya wa ala maqaama wa fawqa kullu maqaamatin wa fadlawo alal anbiyaayi zawil maratibil aliyati seydina muhammad fil awalina mabdaan la Moustapha fil aqarina xitaamam la ay waay ku bëgg yonen man Baye Sall bëgg naa la loo am noo mën a mel ndal njol makka rek mooy waaja ku ñu bind yaa tax Muhammad ku ñu bind yaa ko gën Moustapha ku ñu bind yaa ko raw daanañ ko woowe ala kullu fadlin fadla laawu fadla Seydina Muhammad xoolal dañ koy woowe Muhammad Seydina Muhammad dañ koy woowe Ahmadun Seydina Muhammad dañ koy woowe Xaamidun seydina muhammad dañ koy woowe maqmudun seydina muhammad dañ koy woowe aqidun yoneen dañ koy woowe maaqin am na tur buñ ko naan xaasirun muhammad moom mooy yaa ayyuhal muzammilu seydina muhammad moom mooy yaa ayyuhal mudassiru yonent bi dañ koy woowe abdallahi moom mooy xabibullahi mm-hmm. safiyullahi moom mooy najiyullaahi seydina muhammad moom mooy kalimullaahi bi daa taaru ba yàlla wàccel ko saar naan ko yaasin seydina muhammad moom mooy kalimullaahi moom mooy safiyullaahi moom mooy najiyullaahi muhammad rasulullaahi moom mooy yaa ayyuhal muzammilu abdallahi la xabibullaahi la safiyullaahi la najiyullaahi kalimullaahi xaatimul anbiyaayi mooy xaatimu rusuli seydina muhammad moom mooy muhyi mooy munjin moom mooy muzakirun am na tur buñ ko naan naasirun moom mooy mansurun mooy nabiyu rahmati moom mooy nabiyu tawbati moom mooy xarisun aleykum mooy maalumun moom mooy sahirun moom mooy saahidun moom mooy sahidun moom mooy basirun moom mooy mashudun mooy mubasirun yonent bi moom mooy nazirun moom mooy munzirun sidina muhammad moom mooy nuurun moom mooy siraajun xanaa xamoo ne yonent bi mooy lamp bii leeral ci kaw asamaan si mooy siraajun mooy misbaakun moom mooy huddan moom mooy mahdiyun moom mooy muniirun moom mooy daa'i mooy maduun am na tur buñ ko naan mujibun moom mooy mujaabun mooy afiyun moom mooy afuun mooy wëlliyun moom mooy xaqun mooy qawiyun moom mooy aminun mooy mamuunun moom mooy karimun mooy mukarramun mooy matinun mooy mubiinun maami si abdou qadiri jaylaani mooy mubiinun moom mooy muawilun mooy wusulun mooy zu qurmatin mooy zu makka makaanatin mooy zu isin seydina muhammad moom mooy zu faddlin mooy mutaaun moom mooy mutiun mooy xadamu siddiqi mooy xurwatul usfa siraatullaaye ngoog kenn yegg si yàlla te jaaroo ci seydina muhammad mooy mustapha mooy mujtaba mooy muntaxa mooy umiyun moom mooy jab abul qaasimu mooy abu taayiru mooy abu tayibi mooy abu ibrahimu moom mooy musafaun moom mooy safiun moom mooy saaliqun def la ni ñu màggal yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam